chers téléspectateurs de TFM et cher public de Njegema ñu kontaan nag torop nag euh, ñëwaat fii rek fas yéene leen présenter seen tey nag spécial Njegema di spécial 8 mars. di journée de la femme journée internationale de la femme ñuy door rek di sargal jigéen ñëpp di leen souhaiter une bonne fête jigéen ñëpp à travers le monde entier tey muy bés boo xam ne dañ leen ko jagaleel pour sargal leen ñu fas leen a sargal aussi suñu plateau bi rek def ba mu baax comme nañ ko daan defee ñëpp xam nañ ne njege Maar c'est une émission de femme la ñu wax man ma ne c'est une émission féminine et je l'assume kon nag tey loolu lañ indi ñu indi leen nag thème bu spécial thème bu spécial ci 8 mars bi muy kan mooy jigéen tey loolu lañ fas yéene jàngat gëstu ko trouver ci ay détails yoo xamante ne nii xëy na bon dina xaw metti tuuti si jigéen ñi mais il faut ñu jàngat ko parce que bis bi loolu la laaj ndax 8 mars yaakaar naa du fecc rek ak woy nuroo la ay yére folklore bi yaakaar naa maintenant dañu war a jaar ci leneen c'est une journée d'évaluation ñu war a xool tey fan lañ toll fan lañ jóge ak tey fan lañ toll kon tey loolu lañ leen indiloon ci biir Njëgëmaar ci biir loolu rek duma def lu dul euh, dalal sama gan yi nga xam ne ñoo ñëw tey ci spécial 8 mars bi su may dooree rek mooy dalal sama tonton Ndiaye sama tonton bi nga xamante ni mës na ñëw ci émission bi sax toj ko mu neex lool muy tonton Cheikhna Ndiaye du ñu doyal ci maam tonton Cheikh. <laughs> di lay dalal di la dalal. toogal fu la neex foo toog baax na. fii la a sax defal toogal fii ci sama droite ci sama gauche. <laughs> Cheikh ñuy kontaan di la dalalaat boog laay wax ci suñu plateau Njegema su ma jógee foofu rek damay indi aussi sama beneen invité muy tata Mously jaxate muy ñu sopp ko lool muy suñu suñu référence ñu bëgg ko lool muy une femme qui s'est imposée mu ngi assemblée nationale taxawal fa jigéen ñi ñu tàcc ko tey ci journée 8 mars bi bu baax a baax a baax. salaamaaleykum. <laughs> ñu lay dalal ak jàmm. ci plateau Njegema on est très fiers de toi. di la souhaiter une bonne fête ndax tey ñëpp xam nañ ne jigéen ñi lañuy ñuy sàngal kon nag Taamu Mously bon fête à toi. merci beaucoup bonne euh, fête à merci bu ñu jógee foofu nag euh, kii moom keroog daf fay ñëw toj fi àddina yëpp di ko laaj. ñu xool xool xam ne tey nag 8 mars la mënuñoo def plateau 8 mars moom te ñëwut muy tata jaal jaal. yokk leen seen loxo yokk leen tàccu leen tàccu leen mais daal la ñëw yéen jaxate donc lii du wàccati c'est toujours un plaisir de te recevoir ci suñu plateau euh, ci biir loolu rek toujours comme ni ñu koy faral di defee ñu recevoir suñu frère suñu beneen frère artiste mu way jigéen sargal jigéen di ko xamante ne nii xëy na carrière am yàggul yàgg bu yàgg yàgg yàgg waaye Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a naw muy ku baax ku disponible koo xam ne saa yoo ko woowee rek mu jóg ñëw ñu ngi dalal Pape Diouf ñu tàcc ko nag bu baax. Merci. valeur jërëjëf. macha allah neex na Pape neex na. The Woman mi ngeen di dégg di la femme mooy way wi. ndeysaan jërëjëf Diouf. merci The Woman a ngi. kon nag tey taajaat mooy journée lan maanaam. Uh, uh, uh, this is the journée. Mm-hmm. in the of the the woman. ok yeah. d' accord. Mm-hmm. tàcc leen loolu. journée mondiale de la femme. mondial bi mondial la femme te mondial. li ñu waxee mondial. mondial laaj ko taa musli. <laughs> muslim moom ay français mag samay anglais moom. Ah. rek ba leen ànd mu neex. kese tàcc leen loolu. <laughs> <laughs> kon nañ Pape ñu ngi lay dalal jàmm ci suñu plateau Njëgëmaar di la sant di la gërëm mooy li ma wax sànq ku baax nga ku disponible nga ngay sama frère fu ñu la woowee rek nga jóg ñëw macha allah. di liggéey liggéey bu rafet ñëpp bëgg ko mm-hmm. on est très on est fier de toi. on est fier de toi ça je tenais à le dire sur ce plateau là. on est fier de toi. Euh, mu ngi noonu tey loolu lañ leen indil ci seen spécial Njëgëmar 8 mars muy journée de la femme journée internationale de la femme ñuy sargal jigéen ngi dem suñu premier élément di dalal jàmm kan mooy jigéen. jigéen de xanaa man sama yaakaar mooy ku xam boppam daal am personnalité ci boppam bëgg boppam am lu mu bëgg am lu mu bañ. jigéen moom dafa ëmb lépp. sunu borom moo ko fi wàcce mooy andi waliw ci kaw suuf. mu ngi soxe ko ci faaru càmmooy suñu maam Aadama. jigéen mooy jigéen rek nga xam ne mooy jur ku baax mooy jur keneen. jigéen di mooy lépp jigéen mooy yaay jigéen kilifa la. jigéen mooy kii nekk ca kër ga toppatoo xale yi gérer foyer am toppatoo jëkkëram. képp koo gisee ñu koy sukkal wala ñu koy raamal jigéen a ko fi wàcce kon jigéen maanaam waruñu ko yéemale ak dara daal. moo nekk ci société bi lu baax ñuy def lu bon ñu bàyyi bu ñu bëggee yàq jigéen taxaw defar ba mu baax ndax ñu ñoo jur njaboot gi te boo juree njaboot doo bëgg lu bon ndax lu bon bu ñëw ci sunu njaboot lay daanu te bu daanu ci sunu njaboot day metti ku fi baax ku ne rek jigéen a la jur jigéen yee toog ci sëy yi ñoo sëy sëy yi jigéen yee defar kër yi jigéen yaa ngi ci tool yi jigéen yaa ngi ci bureau yi jigéen yaa ngi fu ne foo dem fu ne boo fa gisee jigéen gis nga góor ci wetam boo gisee góor gis nga jigéen ci wetam jigéen bàyyiwuñu dara lu nar a yàq lu ne ñu defar ko dëgg ci seen tànk lu ñu am dimbali ci seen njaboot ak seen jëkkër. maa ci Fatimata bintu yaa Rasulullah foofu la soqee ko. fa mu jóge fu ne ku xam maam aadama niñ la ko jàngalee war a xam ne jigéen warta dugg ci leneen la dul jaamu yàlla jàpp jëkkëram. jigéen bu njëkk dégguloo ma ne la dañ ko doon noot teguñ ko muy dara. léegi jigéen ñaa ngi xëy fu góor nekk benn jigéen a nga fa ñaar fu góor nekk ñett jigéen a nga fa ñeent fu góor nekk juróom jigéen a nga fa juróom benn moo tax ne la jigéen xam na boppam. ñi xam seen bopp daal mooy ñi toog ci seen pegg yaay ak ñi nga xam ne ñu ngi jàng respecté seen jàng ñi toppatoo seen yaay seen kër liggéey ñi xamul seen bopp nag mooy jël seen tànk yi rek ndayee la ko mbedd bi. suñu rôle ci société bi mooy ku ñu gis nga nar a dugg ci loo xam ne naka su noonu la wàññi la togg. dañ xamal jigéen fóot paase ñun nag léegi amuñu jot dañuy liggéey ñu ngi si marché yi chaque jour. milieu bi ma nekk parce que ay jigéen lépp lu may lu may gisanteel que ay góor xam naa suñu bëree bare bëri bëri donc bari nañu baax trop franchement parler su rawatina jigéeni senegal bari na ju baax trop rawatina jigéen ñi Sénégal buñ jàngatee lii dinañ ci gis ne am na ñoo xam ne dañ ne jigéen mooy toog ci kër ga di togg di fóot di yekk te yaakaar naa ne loolu moom c'est résolu c'est révolu loolu démb la woon damay commencer ci tata Mously ñu kontaan di la dalal malay laaj rek yow tey jii boo doon euh, définir jigéen noo koy définir. merci Adja ñoo ngi lay nuyu di nuyu euh, ñi toog ci plateau bi jongoma rafet yi ñi ñuy seetaan ñëpp ñi seetaan TFM ñëpp ci àddina bi parce que TFM actuellement euh, mi ngi ci àddina bi yëpp foo dem mhm. fekk ko fa dëgg la euh, sa émission bi nag di émission bu am solo man ma yàgg ko suivre mhm. moo tax bi ma ci invité ma kontaan trop doonte xat-xat yi mhm. ak jamono ji fi mu toll ku ne xam na ni Eh, fi mu ne nii ci jamono ji fi ñu toll jëm ci deuxième tour. dëgg la waaye dama bàyyi lépp ñëw wuy si la. parce xale bu xam li ngay def nga. te masala concept bi dafa am solo. rawatina bisu tey ñu wax la 8 mars. Mhm. Eh, bés bu ne la wi mars la ci jigéen. Eh, dégg naa ko wax léegi. Mhm. ci li jàll. ñu seetaan ko mu ne jigéen ci faaru. la jóge mais dama yaakaar ni loolu ay waxu aada la rek li am solo te jara jàpp mooy dañu bind maam aadama bind awa ñun ñëpp ci ban la ñu bindee borom bi ñu bind na nga xam ni lu mu ni kun mu nekk la la mu soob mu nekk ko moo def jigéen def góor euh, jigéen nag am valeur boo xam ne lislaam a ko valoriser te ba léegi fi lislaam teg jigéen amul benn religieux bu ko teg bu fa teg jigéen rawatina fii ci réew mi ñu nekk jigéen gëdd bi ñu ko jox boo génnee ci bitim réew boo delsee di nga nawaat li nekk fii kon jigéen defe naa ni li jara jàpp mooy mu xam boppam dëgg la dinañ ci delsi dinañ ci delsi dëgg la dëgg la <laughs> tonton Thierno Ndiaye loolu loolu tata wax nag nga ko gisee Adja. maa ngi lay ziar si. bu baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bi ma baaxee ma fekkee plateau bi di le mars xam ni yàlla moo wàcce ci alxuraan saar woo xam ni jigéen la ko jagleel góor amu ko. muy sóoratu nisaan. cër bi ñu fi jox jigéen. ñoo yay quatre pour lépp jullit suñu jox jigéen cër ba ko yàlla jox ñoo ngi jaar ak yàlla te ku xeex yàlla yàlla daan déggoo ma de déggoo ma déggoo ma déggoo ko de jox pour nga Pape Diouf dafa oy Chérif Adoli Mané Ndiaye dëgg la pourtant Cheikh Mohamed Vadalay baayam lu tax ñu dàkkantele ko Mané jigéen la mhm. jigéen tuddul jigéen jigéen la tudd dëgg la sa jiwu nga yor xoolal fan nga ko war a jébbale suuf sa nga koy jébbal danga nga cay am yaakaar ci barke bu fa war a jébbee kon jigéen jëggan mu jigéen moo tax ñu ni jigéen sallallahu alayhi wa daan toog ñu ne ko danga far ak jigéen ñi mu ne waaw mooy dëgg ko waaw lu tax nga far ak ñu mu ne eh. ci faar lañ leen bindee ku mën a jubal faar ba mu jub boo ko defee ma ànd ak yéen eh. kon nu ñu mel nu ñu mel nu mu mën a doon eh. téyel nu ñu mel suturaal leen eh. nu ñu mel nu mu mën a doon jox leen cër bi leen sunu borom jox waaw mère Dial waaw bu ñu sori mhm. koo fi muy moom sa yonent ya ci jigéen eh, ñi bu déglu ma bu ma piraat déglu ma rek may ma de bu ma piraat cerno ma wax ni wax nga say wax ba mu jeex déglu rek yàlla woo fi gis ñooma wax wax nga say wax de sori de daaneelu bu ma jël ma jël naa la en direct eh, gis nga ceer itam da ngay bàyyi nag nit ñu wax ma ne jël naa la en direct eh, bu ñëw ma mel la ah. waay <laughs> mais jaal yow la yàlla <laughs> boo meree ma mer te bu ma meree Pape mer. te bu mu ma <laughs> rek yow koy meree ah. loo wax ci loolu. da def thème bu am solo. muy lu am maanaa. ndaxte bi ma fi gëj yàggut. la. yàlla def ci kàttanam bu baaxam ma ñëwaat fi. du nuyu nag képp koo xam ne rek téléspectateur nga buy seetaan télé yëpp. dëgg la rawatina Télé Futurs jigéen di yaay. jigéen di soxna man daal yaakaar naa ne jigéen lépp lu baax dans le monde moo jigéen ndaxte suñu boroom subhanahu wa moom mi ne jigéen mooy sama magasin ak ku toll ni yàlla di sàkk du jël lu bon mukk di ca denc ab dencam buy jël di denc lu baax lay denc kon nag ñun jigéen ñi bu ñu góor góorgóorloo baax ñun jigéen ñi ñooy yaay yi képp koo xam ni kii wan na koo xam ni kii rek ku din doomu aadama la di dox te jógewoo ci jigéen su jigéen ëmb la kon nag jigéen ñi koy sofantal ak naan jigéen ñi jigéen ñi dañoo xamul jigéen ndaxte ku fi baax ku ne ku fi baax ku ne am nga wajur wu jigéen dëgg la te ci jigéen nga jóge mu ëmb la imbi la boot la ci gannaam gi nàmpa la ci wenam wi kon nag ñu jara sargal lañ kon bu ñu ñëwee ci journée mondiale de la femme teew fii day yekk loolu ci man may sargal bépp jigéen nag. di leen delloo njukkal di leen gën a delloo njukkal it di leen wax ngeen xam yéenay kan. dëgg la gën a fonk seen bopp dégg nañ la sànq nga ne yéenay biddéew lan moo tax nga ne jigéen ñi mooy ñooy biddéew. waaw jërëjëf euh, soxna Adja mhm. maa ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonente bi sallallahu alayhi di sant samay waajur di leen ñaanal nag ñu yàgg fi di gërëm sama sëriñ sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom daaru salaam mu yàgg fi lool ànd ak wér mhm. di nuy ñu nekk ci plateau bi yëpp soxna yi di nuyu sama père sama tonton père Thierno di nuyu aussi soxna Mousli mhm. di nuyu sama mère Mama Diallo di mhm. nuyu nag sama fans bee toog Awa Cissé jaax Cissé madame Mel mu <laughs> nit ku baax yàlla baaxal vraiment am nag mbégte lool Adja. ñëw ci plateau bi émission euh, journée mondial de la femme. Uh-huh. donc euh, jigéen moom euh, tey mënum fi wax loo xam ne maanaam moo ëpp li sama tonton wax parce xam nga ñoom ñooy suñuy école. Uh-huh. ci ñun ci ñoom la ñuy royee. Uh-huh. soxna Musli aussi wax na ko sama maman wax na ko jigéen biddéew la donc pour man biddéew bi leeral donc lu war a lëndëm rek bu jigéen teewee loolu day leer. ndax bu ñu naan président raaya boobu amul lu ko gën a màgg ci àdduna donc président raaya bu màgg la jigéen ko jur mhm. wàlliyu xut bu samaan mhm. képp ku ñuy tudd loolu mandarga yooyu dara gënu leen màgg ci àdduna oh, donc ñoom it jigéen moo leen àndi ci àdduna mhm. kon vraiment jigéen sargal ko wareef la sargal ko aussi lu jaadu la ndax euh, sama yaay day faral di wax naan ak noo mën a mel sa tur fu mën a toll rek xamal ne jigéen la sukk moo la ëmb juróom-ñeenti weer mm-hmm. fukkeel ba lu ne mënoon na koo dal te moment boobu bu ñu ko ne woon yéen ñaar kenn mën a dem kenn des moom day taamu dem yow sa doom yow doomam nga des donc kon vraiment jigéen ñi macha allah macha allah macha allah. dana <laughs> kaay ma wax la eh, taajaal yàlla buñ ca bu bàyyi ba demoon. yàlla bu bu bu bàyyi ba demee. Mm. du tee gone gi judd de. waaye bu ndey ji ëmbee gone gi dem. dëgg la. gone gi du juddu. dëgg la <laughs> ah noppi naa kon. ak ah. janay doom mi ngi tënk nday. Ah, euh, wax li Jibril dafa ñëw ni Rasulullah ñetti yoon. nday benn yoon bàyyi. maa waaye booy jëf ci diggante waajur di xëccu barke. da ngay jox Papa Diouf mi sa baay. million mhm. millions 500 joxal sa yaay 2 millions 1 million 500 waaye bu ngeen duggee ci biir yokk ci 1 million 500. ñam déggoo ma de tonton Thiel yaa génnee seen boobu moo génnee seen boobu waaw waaw loolay dëgg di jéem a nax paay waaw waaye kenn du leen naxee noonu de ñu dem ñu dem ci suñu rubrique toj yax bi jigéen mooy ki nga xam ni